Euh, monsieur le ministre chemin de fer ku ne xam na ne am na ay jafe-jafe waaye ku ne xam na ne tamit état bu Sénégal bi président ñëweek léegi li mu ci def bari na ndax xam nañ ne concession bi ñu ko seqee diggante ñun ak Mali Mali dafa engagé woon def ñun ñu engagé wu def ñun ñu def la ñu waroon a def suñuy travailleurs ñi ngi leen di fay te loolu lépp état bee koy def Mali tey jii seen i naataangoo ñi ngi ci 9 mois yoo xamante ni ñi ngi daw ci seen ginnaaw salaire loolu ñu xam ne ay jafe-jafe la donc engagement yi xam nañ ne ko gis nañ ne aussi administrateur bi nga xam ne moo fi nekk léegi muy Kibili moo koy nuyu au passage mi ngi def ay effort pour ñu am ay locomotive loolu xam nañ ko parce que am na ay contrat yoo xam ne dégg nañ ko jamono yee moom ak sud-africain gis nañ ne aussi li nga xamante nii mooy Mali li leen yitteel fi mu ne nii mooy seen wàll waaw comme ñoom seen wàll la leen yitteel nag monsieur le ministre ñun tamit war na ñu mën a fexe suñu wàll yitteel ñu ba ñu jàppale chemin de fer fii parce que dakaar ba Dakar ko ferroviaire la mais fi toll nii nag mi ngi bëgg a nekk dakaar rek parce que nag ñoom ñi ngi lijjanti seen bopp ñun dañoo war a lijjanti suñu bopp mooy fexe non seulement ñu am ces locomotives là et que activités yi reprendre parce que chemin pratiquement 600 emplois yoo xam ne direct la ak plus de 500 emplois indirects xam nga loolu ay doomu aadama ay chef de famille ñoo ci nekk donc loolu vraiment monsieur le ministre bëgg nañ nga wax ñu nag fu mu ci toll tey jii ci fan ngeen toll ak fan ngeen jëmee chemin de fer loolu dañ ci bugg ay réponses yu concrètes parce que dëgg la waxtaan bi dina bëri trop mais bëgg nañ ci aussi vraiment lu xaw a leer mais aussi ñu wax ñu foncier bi. parce que foncier bu nekk ba leer gis ngeen anarchie bi fa am dañ daan gis loo xam ne sax ndañ ko daan loué bariwul donc am na lu bëri loo xamante ni xam nañ ko ci am na nag ay jéego yoo xam ne am na ci parce que administrateur bi mu ñëwee am na yoo xam ne defandoo nañ ko ba pare gis nañ ne climat social bi apaisé nañ ko te climat social bu ñu ko apaisé je pense que lu bëri dina mën a nekk donc loolu aussi bëggoon naa nga ñu beneen mbir bi mooy monsieur le accident yi wax nañ ci dëgg la euh, gouvernement mi ngi def lu mu mën mais ngeen gën a yokk jéego yi pour que li nga xamante ni mooy accident yi mu gën a wàññeeku di féliciter nag le directeur général Ageroute parce que man miinantewuñu mais depuis mu nekk foofu gis nañ ne mi ngi def liggéey bu am solo ci boppu kuréel googu li ci des nag monsieur le ministre mooy dakaar dem dikk parce que souvent dañuy dégg dakaar dem dikk coow mais li am ba des mooy bi ñuy ñëw Dakar dem dikk fi amoon tey ñu ne Sénégal dem dikk ba ñuy wax Afrique dem dikk ñu gis ne bus yi mi ngi daw yokk na te am na loo xamante ne nii amatul ñuy ay retard de salaire grève ak yeneen ak yeneen donc mbir mi mel noonu nag wax dëgg yàlla dangay xam ne lii mi ngi dox loo fekk benn yóbbu ko ñett mi ngi dox moom kay dañuy wax ne nañu gën a góorgóorlu loolu moo tax monsieur le ministre damay féliciter di encourager le DG de Dakar Dem Dikk parce que loo ko mënti waxal c'est quelqu'un ki travaille ki fait des résultats te président Macky Sall soxlawul leneen nag lu dul ay résultat coow léeg à gauche à droite di ngeen dégg lu ne monsieur le ministre yow mi tey jii xam naa ne bala nga fay jóge lu bari di nga ko dégg mais wax ji wax ji mooy au moins fekk nañ fi temps ci autoroute indi nañ ko temps ñaar temps de kilomètre de route indi nañ ko temps autoroute bi ñu fi fekkoon muy péage bi ke ñëpp xam nañ ne musta indi dara te autoroute bii ñu defar barki démb indi na 4 milliards kon ñu xam ne ku dox lekk ku doxlewul donc wax dëgg yàlla coow li moo fi nekk rek mais xam nañ ñun ñëpp li fi ne li fi ne nii fi lañ ko fekk duñu ko toj loolu dëgg la waaye nag dinañ fexe ba yi nga xamante ni defoon nañ ko ci ci ay jafe ñu jéem a fexe parce que continuité de l'État aussi loolu c'est une réalité donc je pense que monsieur le ministre nous vous encourageons que nous connaissons vos compétences te xam nañ ne lépp loo xamante ne nii président de la République jox na ko ci joxe na ko ci vision di nga fexe tout pour que avec tes collaborateurs ngeen mën ko matérialiser donc monsieur le ministre euh, des finances et du budget li ma wax lépp surtout ci wàllu Dakar ba ma ko ferroviaire xam nga ne lu ci bëri nag ci yow lañ koy waxal. te xam naa ne am na loo ci war a wax je vous remercie.